ci ñaari mbër yi nga xamante ni ñooy dugg ci géew bi jëflante tey nag ma dala fi koo xamante ni kenn dootu présenté muy Gouye 95 Gouye 95 nag defe naa ne euh, manqué na empreinte am ci làmb euh, fexe na ba nu xam ko ci làmb ndax làmb mbokk yi looloo ci gën a jafe parce que boo fay boo gisee euh, licencié yi ñu bëree boo ñëwee ba am manqué sa empreinte ba ñu mën la xam ne rek dafa mel ni yaa ngi ci yoonu développé ci làmb ma bàyyi a wéy ma invité fi ñaar ñu toog àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen char di leen jaajëfal di nuyu waa wasaare lamb yi nga xam ne fekk naa leen fi di la nuyu yow. Mm-hmm. di nuyu tamit sama frère bi nga xam ne muy jili yéen a bokk liggéey bi. di nuyu waa équipe wasaare lamb yépp di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak géejawaay di nuyu suma kilifa alxakim borom sarax yi di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ba yéenam ci màggal gi ak liggéeyal Serigne Touba yàlla sunu borom may ko mu fekkee mission bi. di nuyu suma mag aussi tamit bi nga xamante ni moom laa nekkal muy njiin di nuyu suñu waa kër yëpp di nuyu sama jabar mag yëpp di nuyu waa Sénégal di la nuyu aussi di nuyu ñi nekk ñëpp daal. Mhm. Euh, dana mhm. xam nga guy gi dama ko mës bëgg. Hmm. boobu maa ngi nekk xale di ànd ak sama mag Baye Laye di liggéey. boobu maa ngi ñu ngi amoon sànce euh, Géejawaay marché bees. boobu Laye Sarr moo nekkoon suma patron. par la suite nag su ma musaana jógee entraînement su ma musaana liggéey bu baax dama daan dem seen école di ko seetaan boobu mu ngi nekk période guy gi ak nees waaw guy gi ak nees 2014 xaw ma 2015. léegi nag am sama benn grand malal heure mu musaana wàcc nag liggéey dama daan dem salle boobu di fa entraîner ma gis ko mu ànd ak guy gi ma ne koy dama présenté guy gi daf maa neex. après nag mu ma encore amul problème naa la présenté guy gi mais fekk na boobu Brésil la mu ñu doon commencé dugg. waaw fekk na boobu ñu ngi doon ànd ak Babacar Diallo boobu ay xale lañ mais xam nga Malika moom seen tefes gi ak seen géej gi macha allah quoi dafa neex a entraîner moom xale bu fa judd la ngay jëkk xalaat mooy entraîner ak dem plage parce que dafa neex. par la suite nag euh, général mu koy nuyu baax a baax sama jumeau général Malika daan euh, kii doomu Kayor bi mu ko daanee nag may tànn bu rëy bi mu ko mayee nag may ñëw foofu di bàkku xëppoo suuf def affaire guy gi après nit ñi commencé naan ma guy gi guy gi ba benn bés nag fi guy gi bi gën a lawee nit ñi di ko woowee dafa am benn tànn béer bu amoon alubay ñaax bu waa Espoir ñoo ko ñoo ko tëggoon mooy nuyu ñoom Nana ak ñoom Mariama tàndbeer yi wax xam nga guy gi xëppoo suuf ak yooyu boobu nag ma ñëw bi ma ñëwee mu tombé nag jamonoy seddaay bi ma ñëwee nag laa ñëw bàkku xëppoo nekkate soo bi ma jël am glace. léegi nag bi ma ñëwee laa ko jël xam nga xëppoo ko sànni glace yi fii après nit ñi boobu maa ngi tuddoon boy pir mooy nuyu boy pir bi bu baax a baax. di ko ñaanal yàlla di woyawal woyafal yéen bi ci kawam di ko encouragé bu baax après nag nit ñi commencé naan la guy gi guy gi looloo waral guy yi bi. boobu doo ko yëg. waaw des fois di nga toll foo xamante ne nii bu buñ la doon jam sax doo ko yëg après boo toogee. ngay sentir ni seddaay beeg yooyu noonu foofu la guy gi bi jógee quatre-vingt-quinze bi. Boucher ma koy nuyu sama frère moo ma ko tuddee parce que dafa ñëw ci école bi fekk ñëpp taxaw xam nga guy gi dafa bëri ay après guy gi ñëw nuyoo guy gi un guy gi deux après Boucher daane kii mooy quatre-vingt-quinze. après Aziz Ndiaye ma koy nuyu bu baax a baax Aziz Ndiaye jël combat jox ma mu nekkoon géejawaay sama combat ak Mansour Diouf Bosco Sow ci laa ñëw yàlla sunu borom may ma ci ndam may nuyu Maaw Cissé ak Medoune ak Lamine Samba ci lañ commencé nag def promotion quatre-vingt-quinze bi quatre-vingt-quinze bi may bëri tamit di prouver ba yàlla dogal ma tudd guy quatre-vingt-quinze mais amour moo ma ci jiitaloon ci guy gi. ci <laughs> mhm. mais saa bu la déggee micro da ngay laajte parce que guy gi laa imité ba pare nit ñi bëgg ma ci ma ci am façon teraanga bu nekk. dem na ba su ma toogee ci plateau sox su ma waxee olof su ma paree di nga gis ñu ma mere ni ma pour pourquoi ñun émission bi seetaan nañ ko mais gisuñ suñu bopp te dafa am benn médecin dama mës a ànd ak guy gi ñu dem Dantec mooy ñiy fa damm. Dantec la bi ñu demee Dantec ma ñëw bi ma ñëwee fekk maa ngi ci ginnaaw oto bi am ay policiers yu monté foofu bi ñëwee ñu ni guy gi mais ana booyoo tamit làkk français guy gi mu ngi ci biir hôpital mais après dinaa ko biñ ñëwee médecin bi ñu toog xàmmeewu ma mu ne guy gi am na benn booy de kooku noonu dama koy gis day làkk ay français naan sama dënn bi dafa damm anamu guy gi woo ma ñëw médecin bi yëkkati xaalis bu bari billaahi may ma ni ma ñun mën nañu faj mën nañu faj ku damm mën nañu faj kuy waaj a dee mais reetaan loo nit yombul kon li la yàlla may nii tee ko des fois ñun dañuy stressé wu sax dugg ci tiktok bi seetaan la wala ñu seetaan keneen koo xam ne day comédie kon loolu bu ko bàyyi. loolu waral nag français ma koy làkk dem nag ba am di liggéey ak ñoom alhamdulilah daal. non làkk rek comme bonjour tous les Sénégal guy 95 15 15 mois 95 à Malika comme fii laa nekk damay nuyoo arrivation de salutation tous les personnes qui assis ici sur le Wassare Lamb parce que c'est pas évident tous les personnes laisser ton temps arriver ici kon si moi là où fais assis ici c'est un mouvement salutation tous les personnes qui laisser ton temps prends ton téléphone acheter ton connexion regarder yàlla mm-hmm. sama deuxième combat mu ngi nekkoon mag jin bi yoof jin bi mm-hmm. ko daan para maa ko daan ñu bëre presque dix huit minutes mu mbëkk ma mu tëdd ci règlement làmb ñu jox ma victoire son bu jeex moo ko tëggoon mu koy nuyu baax a baax mm-hmm. combat yi ma jël solution solution daanu boobu sax boobu sax li tax naa mais non daanu naa daanu naa non daanu naa mais boobu waali waali waalee mu diggoon loo xamante ni daanaka moo moo yàqoon boobu mu ngi doon le 3 mai anniversaire waale anniversaire waale ñu dem signature ba moo nekkoon Tyson Gris Bordeaux maa bëri avant grand combat bi ma ñëw bàkku mu neex waale génnee 200000 may ma ci signature bi boobu 200000 ci mbër mu ndaw boobu promoteur bi sax fayu la ko waale jox ma ko ni ma so ni ma boo demee jour ba nga daan nga ñëw euh, ma invité la mu ngi doog a génnee kooba yi ma koy nuyu baax. léegi nag bi ñëwee suba la làmb ji ci laa dem shooting jënd ay yére yu bari ak ay dàll defaru jour làmb jëm du ma fàtte ngémboo ma sax sama néeg parce que dama doon bañ néeg bi taq <laughs> booy wax may leen non garaaw nañ leen dem rek man ah, kii naa ko gérer ma ñëw làmb ja topp fecc mi bàkku yi di fecc lu ne mu dugg ci yàlla dogal ma ñàkk. Hmm. waa nii la demee mu daan ma mu koy félicité duma ma sardel victoire jàmbur. dama jékki-jékki dégg guy gi ñëpp di coow guy gi jékki-jékki déggatuñ ko mais ñi si daan dama bëgg ñu xam fi la guy gi a waaw ci laa fa jógee bërëg alliance bu caajaay yàlla may ma ci ma jël Boy Jules yàlla def ma ñàkk ci laa fa jógee jël mbéygee fay ñàkk ak sama combat bii. mais su ma su ñëwee ci loolu bi combat mujj bi dama toog temps bu yàgg bëriwul. waaw mais ñu jékki waaw làmb mënu ko bàyyi parce que làmb moo tax nit ñi xam ma tey ba may invité naan guy gi invité woo micro invité woo verre guy gi guy gi ngay wax te guy ko wax sa xel dem ci làmb làmb mënu ma ko bàyyi parce que mënuma am lu lu lu sut làmb mais nag nit tamit des fois di nga dem ba toll foo xamante ne nii bu nekkee boo génnee benn nit génn wala ñaari nit génn ba ñett amatuloo droit amatuloo droit def erreur ci laa bëreeg mbéy fay mu daan ma ma ànd ak samay mbokk. dem voyage waat liggéey waat xam ne man mii ko dama bokk ci làmb daaw ñu bëggoon maa jox combat sama staff bi ñoom daa ñoom Tafa Soumaré Cheikh Ndiaye jàmmalaay ñëpp ni ma combat bi kat joo ñoragul pour nga jël ko liggéeyaatal dencaatal sa bopp. avec ci loolu nag xam nga nit ku nekk ak wërsëgam aussi comme man tamit sama communication maison production yi bëgg nañ ma tamit di ma jël may jouer ay série mais série ma jouer dama fay représenter mbër dama fay yóbbu turu làmb ci kaw loolu ma nekk ci série yi di entraîner wàll di liggéey. ci laa jël combat bi mu nekkoon sama diggante ak caatu bayla ma koy nuyu bu a waaw noonu la ma yàlla bindee. waaw loolu yàllaa koy def cin bokkul cafin. dama xon ni duma ki lay njëkk daan bayla duma ki mujjee daan. yaa gën tuuti ci ñi daan xam naa li wóor te wóor li wóor te wóor mooy. yaay daanu jour le 27 boobu dama doon wax ak moom noonu rek sama xel dem ci Thione Seck ñu koy rendre hommage fekk boobu Sidi Diop defoon benn live doon rendre hommage Papa Thione may wax noonu rek am inspiration bu ñëw sama xel ci laa fente loolu mu neex xale ay di ko salange maanaam làmb tey lamb léegi lamb dafa neex làmb dafa yaatu da gis tey Laurent Ndiago day wax pare ñëpp di ko salange bu Siteu ñëpp di ko salange Alburi Biram Pend xale limbi limbi xale mbër soof boobu nga ngay pare ñëpp di ko ñëpp di ko salanse tey làmb dafa am dafa am dafa indi beneen beneen beneen dafa yegg ci beneen niveau boo xamante ne nii nekkatul ci nga ñëw arbitre ni prib nga ñëw bàkku bëri loolu mooy taf loolu mooy làmb mais en dehors làmb dafa am ñoo xamante ni moo leen attiré te loolu day bokk ci li nga xam ne xoolal Alburi day am combat ñëpp yëg ko mhm. Alaaji Mbay Buuse dañu am combat ñëpp yëg ko parce que loolu mooy neex làmb këccëb wu lii parce que loolu mooy neexal làmb du tee tamit bu arbitre sifflé kan la waaw kalso parce que tamit loolu mooy neexal làmb du tee tamit arbitre bu sifflé di nga def fulla dinga def fayda waaw. mais léegi su ma boobu nag wax dëgg yàlla ku dee rek ak sa bàmmeel combat la boo xamante ni. Euh, promoteur bi daf ñu xawoon a tënk. waaw daf ñu xawoon a tënk daf ñu xawoon a tënk ça veut dire tey combat boo xam combat bi bu ma la nee bi ne suba la Maguette mu ngi CNG mën na ma mën na ma sëyade jarul ma fen bi ne suba la à 17h laa la général woo ma ni ma promoteur bi nee na mu ngi lay woo mais jëloo ko. ma ne ko non ah bu ma sonal waaye man noo bàyyi ma nelaw quoi damaa sonn général taal euh, motom ñëw ba suñu kër ni ma booy fi doon nii le moment est venu combat bi ay minutes moo ci def wala ay jour jëlal combat bi nga dem bëre. ma ne ko mais man comme yow est-ce que yaa ngi xalaat combat boo xam ne ñun suba la fayaguñ la parce que li ray li ray ñu bari mooy. waaw li ray ñu. waaw li ray ñu bari mooy def nañ signature parce que promoteur bi danañu def leen signature boo leen defee signature sponsor mën maa jox xaalis su ma sponsor bi joxee xaalis après man dinaa leen dinaa leen dinaa jox seen avance Matar Ndiaye keroog dafa ma mere ma koy nuyu bu baax a baax bi ma nekk xale ba tey moom laa xam ci làmb ma daan Ndiaye ma koy nuyu baax a baax ma daan Ndiaye daf ma mere woon boobu ñëpp mere ma ma ci nuyu sama yaay mamiko borom bés faar waaw mi gor rek man gor la te dama may kilifa daa ni ma guy gi demal nga bëre suma yaay mamiko borom bés faar ni ma demal nga bëre ma dem def signature mu neex ñu bari toog promoteur boo ko woowee du la jot du la doo ko jot moment yooyu moom neew na na dafa nekkoon ci problème rési rési rési rési rési rési rési rési rési merci ci la nekkoon ñun tamit ñu comprendre ko. tamit comme man du yàq làmb. général ñëw wax a wax ma ne am na problème woo ko. général woo ko ma doog ko jox accord ma daan jaay ne ko signé làmb ji làmb ji ñu ni suba la bi ñu nee la lañ ko signé ay 19h laaj ko waa CNG ma nga laaj leen. lañ signé combat bi 19h. ba bi may ñëw ci làmb ji Amady Diaw Serigne Saliou maa ngi koy sant bu baax a baax jàpp na ci moo taal otoom ñëw. dama doon dajeek ay nit sax ñu naan ba yow sa combat bi may leen ah wóoruma de parce que bëgguma woon a dajale nit ñi dem ci autorité ñu jàppale la jour làmb ja promoteur bi ni tëgguma ñu naan booy dañuy teg dil booy dañuy dóor ay marto damay dajeek ay nit sax xoolal combat bi alhamdulilah nag ba am na ñu ma bëgg ñoo xamante ni euh, buñ ñu woon bu jékki jekk woon dégg maa ngi fii dina ñëw mu ci nuyu soldaar yëpp parce que boo xolee keroog waa DIC dañoo def délégation ñëw nekk VIP waa classe ñoom góor gi classe 2B as 14 2 ñëpp maa ngi leen nuyu soldats yëpp promotion yëpp dañoo def déplacement ñëw ni ma dañoo toog nii dégg ko ci télé bi rek ñu ne ñëw kon ñooñu dañu lay bëgg te yàlla tax duñu xaar dara mais combat boobu ñëwee naa ci noo xam ne mosuma ko ñëwee ci làmb bi ñëwee ba ci jouru làmb ji daa du ma bàyyi ma fen daa la promoteur bi gis ni ko kaay sa xaalis a ngi nii daa jël xaalis bi Matar Ndiaye ci jour ci biir ci biir wala Matar Ndiaye mën naa ko woo Matar Ndiaye dem jënd portaisan daa ñëw jox ma ni maam ma bëree ba pare laa ko doog a jox avance jox ko reliquat mais dafa ma bëgg comprendre ni combat bi demee moo tax mais manager ku ne xam na ne bu jëlee avance lay jël 10 pour cent am xaw ma 15 pour cent Massane Ndiaye bi ma bëree pare loo ko doo ko jël xaalisam doo ko jëlaat reliquat mais teewul ñëw nañ bëri nañ ko ci fulla bëri nañ ko ci fayda. mais mais combat bi boo xoolee. xam nga baylaa baylaa baylaa waaw te baylaa tamit tuutiwul moom amaana sax li ko ci fekk dem na di préparer di entraîner ak ñoom qualifier ak ñëpp man loolu fekkuma ci maa ngi doon entraîner mais amoon yaakaar ni man juróom dinaa bëre bi ma ñëwee nag def naa boo xoolee song naa xeex naa ba sonn parce que man làmb moom bu di jeexee leneen jeex moom man bu arbitre bi ne mon xaw ma ci laa taxaw def sama song lu ne ma def ko boo xoolee. suñ jàppantee buñ demee ba ci saako yi day def rotation jaay ma xelu mag ma laaj mbay di te laaj mbay durkat la def rotation man ma fekk génn saako ñu jox ma avertissement bi ma xam ne nag man maa ngi jël ay engagement te am na ñu topp sama ginnaaw ne xaaral ma taxaw xeex lu ma yàlla may ma ci laa taxaw di xeex di xeex di xeex ba mu jeexee par avertissement ñu jox ko victoire mu koy sant bu baax a baax di sant yàlla aussi. léegi waaw ci laa fa jugee nag ñu woo ma ku ci mel ni Pamatar ak jàmmalaay house couture Sèye Ndiaye sama boy yi may àndal ñoom Pape Thioune ñoom Cheikh ni ma dañ laa wooree ñoo famille ma ñëw nag ñun ma carrément dañoo bëgg tey nga taxaw taxawaayu Ousmane Sonko yeewi askan bi mais nuyu waa APR nag nga xam nga wax dafa garaaw. waaw ni ma dañ bëgg tey nga yeewi askan bi mooy ñaaree mën mhm. nga nekk mbër wala nga dem nekk séeréer yi que tamit ñun mënatuñ. waaw ñun mënatuñu. ñun mënatuñu mënatuñu di nekk fii TikTok beeg fu ne ñu seen la ba ngay dagg wëccëg lu ne nga dugg ci parce que boo demee làmb ja kenn du comprendre qu'est-ce waaw qu'est-ce qui se dañoo bëgg na nga libéré ñu ma ne leen carrément nag wax dëgg yàlla du ma bàyyi série nag parce que tamit dafa am ñu ma ci bëgg ma ci faj ay feebar muy TikTok bi loolu temps la rek TikTok da ngay toog jël sa kii rek xool bàkku baax la gay nit ñi di ko saraan nga jël fecc waxtaanee ko rek comme genre groupe WhatsApp la léegi nag jot na pour ma dëggal sama bopp ci làmb ji ci laa ne leen man wax dëgg yàlla dinaa jëf-jëfinu mbër comme na ma ko xamee woon démb ak bërki démb nekkaat naa ci ci laa xëy demaat sama écrit mu écrit Malika mbooloo di fa entraîné ba tey ñu ngi ci alhamdulilah. waaw man combat bi combat bi combat bi sax ci écrit Malika bi laa ko bëree. waaw jóge ci écrit. waaw li tax ma jógee Mor Fadam mooy làmb dafa dafa dafa dafa xaw a ci ñenn ñi. parce que tey mën naa joxe exemple ci ku mel ni Eumeu Sène miinante wuñu mais Eumeu Sène tey ni muy dundee làmb man dama naan moom rek laa gis ci àdduna ko koy dundee miinante wuñu man ak moom nag dëgg yàlla mënuma la wax fii la dëkk. mais mën naa seede ni Eumeu Sène heure bu mësaan a ñëw Malika buy ñëw Malika su tollee télé bi xool nga xam ne Eumeu Sène mu ngi ñëw son yi lay yokk dugal ci xajam yi oto bi. yokk son yi ba mu sës nga dégg bëm bëm ji fu mu droit fu mu romb droit te kaf fii ambiance fii naan fii ataaya ba keroog mu yegg din maa ngi koy bi ñu bëri ak Lac de fekk nañu ñun ñu toog dinañ di entraîner mënuñu mais booy ñëw leen fii ñu entraîner waaw mais lii du dara lamb la rek mais tey lamb ni ko ëmb seen di dundee par rapport ak ni ko ñeneen ñi di dundee mën naa jox exemple ci moom parce que moom laa fréquenté loolu. li waroon ma jógee euh, géejawaay mooy nuyu ña fa nekk ñëpp nag li ko talee ci Pate Pete Djili ngay lu Mor Fadam ñëpp nuyu naa leen li ko waral mooy lamb dafa demoon ba waa Malika dañu bokk adversaire ak waa géejawaay général Malika bëri fa général Malika bëri fa fils de Balla bëre faak Mbaye Tine bëre faak euh, Eumeu Sène junior mais Eumeu Sène junior sax combat mook euh, général amul woon danger parce que boobu Eumeu Sène tamit amaana lim nekkoon ci keppaaru Eumeu Sène moo tax loolu noonu faale ko woon dama doon ñëw ci école bi su ma ñëwee dama ko doon moytu parce que dama ragaloon mais da ngay moo lay booy kay kay kaay ñu contact yàlla dogal combat ba ñu bëri mu daan général mais léegi nag après général commencé bëre général jëlaat Mbaye ay coow commencé ci am xam nga après amu ci problème nag wax dëgg yàlla ñëpp laa seqal jàmm ñëpp géej waaye amul ma neexoon suba suba mu dem école de lutte Balla Gaye contacté fa ñëpp laa seqal jàmm mais làmb nag day dem ba <clears throat> day toll foo xamante ne nii affaire de gox la affaire de koñ la te it comme Malika samay morom ñu ngi fay nekk nelawuñ guddi nelawuñ bëccëg di yëkkati turu Malika di ko yóbbu fu sori kon nag man samay morom duñ ma gën a gore ma waxtaan ci guy gi mu wax dëgg yàlla fi mu toll nii da nga xat géejawaay da nga géejawaay mooy day dem ba kii diw bu waree waree bëreeg général doo dem diw bu waree bëreeg kii doo ñëw ci école bi doo dem fee léegi nag loolu moom jaaduwul dellul Malika du tee boo xamee combat li nga seq ak waa Géejawaay daan def ci ay ak ci mobilisation dinañ ko def li waral ma ñëw Malika nekk fa ak samay morom pour jël turu Malika yóbbu ko fi ko samay morom bëgg yóbbu. Mhm. may nuyu Fallou Ndiaye dëgg yàlla Fallou Ndiaye jox na ma avance muy diggante Ada Fass ak Zarko. ci loolu ko dugg. non la ñuy wax. man man dugg man dugg man man man man dugg naa non maanaam fi mu toll nii ñoom ñooy choisir adversaire mais man sama côté. Mm-hmm. man sama côté dëgg nañ ci ay kët ci ay kayit ni Fallou Ndiaye tëgg na sama combat Matar Ndiaye signé na ko fay nañ ma temps Ada Fass ak Zarko léegi nag man man ñoom. Mm-hmm. léegi nag ñoom ñooy choisir ku leen neex. mais am naa yaakaar ni mag Ziza bu Pikine ma koy nuyu bu baax a baax parce que euh, mosoon nañu daje man ak moom mosoon nañu am jafe-jafe ci combat guy gi booy Niang mais xoolu loolu wax dëgg yàlla bi ko gars néewul booy bi dafa lii booy bee dafa lee. waaw man mii tamit ndama ma arrangé làmb kay ku ci ñëw. làmb kay ku fi ñëw ku fi ñëw kay ndama la arrangé. dëgg yàlla mu am possibilité. waa moo tax man ndam waa ndam kay du ko gën a bëgg. Hmm. ma koy nuyu baax baax parce que am na possibilité am na yërmande ni promoteur bi may ma incha allahu rabi mercredi balaa 17 ma jox la sama accord te bi may dégganteeg Matar Ndiaye léegi daanaka alhamdulilah quoi am naa yaakaar ni combat boobu dina taxaw muy sama combat man ak Ziza ma koy nuyu baax a baax nag. te Tyson waaw taxaw taxawaayu Sonko waaw. waaw bu bu raw sax bu raw sax parce que combat bi day dàq. parce que waaw Zé Zé ah, ñoom Amar mi waaw ñoom Billa Zé ñoom Boy Malika ñoom ñëpp am combat. kon man nag su ma ñëwee tamit yàlla dogal ma am combat. war a xàllal Billa Zé parce que am na combat moo caatu yoof war di ko ñaanal yàlla may ko ndam war ko xàllal day gën a neex. ni may waajalee rek parce que mm, actuellement nii ñi ma doon wax ñépp seen xel dal na parce que da ngay romb nit di dem sax muy la lii laa bëgg sama xel dal na ndax su ma la gisee dinaa xam ne yaa ngi ci làmb ji mais xam nga ay fi nekkoon benn français topp série yeeg kees kees mooy rek topp soo bis bi ba wàcc sama yoon. mais nag ñëwaat naa alhamdulilah ba nit ñi la doon xas ñépp ñoo lay woo. waaw des fois nga jékki-jékki nit romb la fajar jékki-jékki am lu mu la dugalal ne la boo demee lii ndekk ci sama xel dal na ci yow. kon damaa wàccoon sama yoon mais alhamdulilah ba combat bi daal ñu ngi koy waajal di ñaan yàlla suñu borom ñu yegg ci ci jàmm ak salaam incha allahu rabbi ñu ngi waajal génn dem voyage yi waajal làmb ji ñëw ci kàttan suñu borom daal am na yaakaar ne ña ma doon bégal daaw ak daaw géej bu soobee suñu borom dinañ kontaan. Mhm. Euh, ban mooy ñàkk entraîné. première chose ñàkk entraîné mbër da war di entraîné ba buñ la nee combat ba combat euh, bu ñu nee suba la bu ñu nee tay tay dama koy xool ci général bi muy daan Reug Reug yaay armé yàlla na ko yàlla yërëm tax xaar ko àjjana ci dëj bi toog euh, am ku ko woo ni ko tournoi am na de Ibamar non adressé ngor général ni ma booy kanjam damay bëre ji ma ko fëj mu ma damay bëre général dem jël ngembam jël otoom jëlee bagaasam dugg dem mooy combat bi mu daan kon làmb kenn du waaj mbër du waaj mbër day pare ba bu ñu la nee combat suba la nga pare man nag loolu laa fàtte woon loolu tamit laa réere woon moo tax combat bii dama ñëw bëri ci ngor ak fula. nangu naa nag lu ma waaye waxit nangu naa maa def erreur entraîné wu ma nangu naa maa juum nangu naa mais nag maa ngi jégalu képp koo xamante ne yaa ngi may bëggee képp koo xamante ni yaa ngi sonn ci man képp koo xamante ne yaa ngi toog di jël sa téléphone di ci commentaire parce que ñoom amuñu seen fay. dañuy jël seen temps jënd seen connexion di commentaire ngir yow fayoo leen xamoo ñaata nit ñoo lay suivre xamoo ñaata nit ñoo lay bëggee kon maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen jégaluwaat loolu laa xam ne def naa ko muy erreur toog te entraîné wu ma topp télé yi rek topp pot pot naan la non mais mais mais guy gi mais mais guy gi suba sa séquence bi ah ñoom Anne Marie topp leen fii ñu naan la non guy gi sa séquence suba sa séquence bi ma topp leen di tërërër rek moo tax ma ñëwee ci làmb ci keroog. metti na gisuma pot metti na gisuma Anne Marie <laughs> ay dërënte rek laa gis. waaw waaw waaw waaw waaw ay commanda waaw ay loolu dama ko namoon uh-huh. euh, uh-huh. yi li ma gën a neex ci làmb mooy euh, président CNG Bira mm. moo koy nuyu baax a baax mooy. li làmb manqué woon lépp la indiwaat mooy làmb keroog dama toog esat combat Papa Boy Djiné ak Jacob bi ma gis Jacob Balde jël benn 10 litres di ko xëppoo Ama Balde nekk ci ginnaaw loolu sama xol sedd loolu dañ ko gëjoon a gis ci jamonoy Modou jamono jamonoy Ama Balde yooyu yëpp amul woon léegi làmb da ngay ñëw bi jënu ko ba da nga koy yor maanaam làmb culture la làmb aar la tey tubaab bi bu ñëwee di ñu seetaan. tase mooy. tase mais man ak non mais man ak mais mais ba ci mbëri rek xam nga tey. Euh, ah, mbëri mbëri mbëri mbëri mbëri mais xam nga mbëri mbëri ñooy woote violence. Mm-hmm. mbëri ñooy woote violence ci seen biir. Mm-hmm. mooy que da ngay am combat taxaw yàgg sa adversaire di ko saaga wala nga dajeeg moom fii di xeex lamb dépassé na niveau boobu man muy bëreeg bay laa est ce que xam nga ni alaaji mbay ba bi ñëwee suba la combat bi dañu doon waxtaan mais duñ wax sax ci waxi làmb ah. Mm-hmm. duñ Ama bale dama doon ñëw jékki-jékki dajeeg ñoom may nuyu sama booy ñoom Milo dama doon jékki-jékki dajeeg Ama Baldé kaf ak moom réew ak ñoom te seen ji baylaat maa ngi moom taxaw nañ ni boo xoolee vidéo di nga ko gis Alaaji Mbay yor béjjënam fii ma naan ko bu ma la jàppee ñu naan bu ma la jàppee mais jeex na làmb nag violence nit ñi ñoo koy xëcc. mbëri dañu xam ne làmb sport la sport boobu nag sport du du tàqale sport day boole. kon nag làmb ñun nañ ko rafetal làmb léegi dépassé na Alboury su ma ko woon léegi mu wuy ma ñu waxtaan mais bu lamb jotee lamb la xaw ma xaw ma ko kon tey jii xalaatuñu am combat mais mbëri nag ñu am komba xam nga dajeeg yow fii di la saaga dajeeg yow fële di la dóor léegi nag bu ko defee jour lamb ji da nga ñaam benn sens interdit waaw waaw te lamb nag famille boo xoolee bërki dem bu guy gi def dafa rafet dajale mbër yëpp mbëru géejawaay yi mbëru parcelles yi la de guerre ak Balla Gaye kañ lañ gëj a jàkkaarloo bërki dem gisoo leen ñu toog ñaar di waxtaan ci ci match ba guy gee créé loolu waa parcelle ñëw waa géejawaay ñëw te bientôt waa Pikine dañuy ñëw waaw fii sa Balla góor a sopp fii sa Balla gis na mu bëre góor a sopp pare liiru jaan jël na leen yóbbu leen seen kër yóbbu jël fii sa Balla ni ko kan jëm ko ñoom ko a sopp toog waxtaan làmb la ñoom ñaar ñoom mayante xaalis kon ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi rafetal soow mi ba bu ko defee ñi nga xam ne ñoo ñuy siibur mais tey jii bu nekkee da am combat taxaw ci télé bi yàgg sa adversaire di ko saaga wala nga koy wax loo xam ne lu ñaaw la supporter bi nga xam ne dalaa bëgg tamit moom tamit loolu rek lay gis kon loolu la di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Sénégal di la nuyu yow parce que yaa ngi def ay jéego yu am solo ci làmb di nuyu waa wasaara di nuyu jili yàqu leen ko benn yoon di nuyu waa Malika gi ma jógee di nuyu suma mag jàmm lay House Couture ma koy nuyu baax a baax jàpp nag sama carrière baax may nuyu daa laay jóob di nuyu képp kuy bëggee guy quatre-vingt-quinze di nuyu nag suma yaay mami koo borom sufaar nga xamante ni day jël xaalisam di ko def ci man di sonn ci man di ma jàppale aussi di nuyu waa Malika di nuyu suñu waa kër du nuyu suñu waa koñ parce que dëkk ak mbër daa métti da yeewu koñ bi fii boo amee combat kenn du nelaw taqal koñ bi fii wax ji fii coow li fi guddi gi bu nit ñi nelaw boo yaa ngi bi di déranger rek kon dëkkandoo àq la ñu ngi leen di baalu àq ñi nga xam ne ñooy sumay dëkkandoo di nuyu képp kuy bëggee guy quatre di nuyu ñu ne ci TikTok bi influenceurs yi mënut a ñàkk nag parce que maa ngi ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di jaale sunu benn frère bi nga xam ne dafa gaañu woon fan yee muy Momo te mu nekk série Virgin ma koy ma koy ñaanal yàlla na ko sunu boroom yërëm te jégal ko te xaara àjjana di jaale aussi tamit Yuri Sall yaayam bi nga xamante ni dafa gaañu barki démb di ko jaale Mama Yaay di ko jaale Daba Ndiaye di ko jaale ah, Thierno Bokar di ko jaale waa kër ga yëpp di ko ñaanal yàlla na ko sunu boroom yërëm te xaare ko àjjana di sant ñëpp di gërëm ñëpp di waajal nag màggal gi ànd ceeg alxakim borom saraxi séeri soxna incha allahu rabbi gis ngeen mbokk yi noonu lay demee tey ci Jamarloo Gouye Gui 95 laa fi dalaloon waxtaan ak moom ci làmb li mu jot a jàll ak li nga xamante ne moo ci kanam mbokk yi di doon jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbir ci